الحمد لله اللهم لك الحمد كما تحب وترضى حمدا طيبا مباركا ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد باب الحضرات ومفتاحها طب قلوب الأولياء ودوائها وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين أئمة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وتعطفي بنظرة بها أنا الوتري وتعطفي بنظرة تأتي لنا بظفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقت جلدي بقت طالبي من نيوان دي زيارة نيوان نانتي سن درسو كي فايدو جاري كي بو امام البيان والتبيين عن التجانية والتجانين بمولانا شيخ الإسلام مثابت الإمام الحاج إبراهيم رضي الله عنه كما سوون نانكو كرك داف نان التقديم كما سن نجل بي نو تيري بي غيس نان لنج سي غيس كرك سيرين بي رضي الله عنه دي نلال نه ا لي تاخا جوك موي بيند سي تيجانيه بيغا خامني شيخ jox na ko ay saxaabaam ñoo ñee def ci yitte tasaare ca lañ man wax juy tekki ne moom itam lef moomu la jël ngir leeral ci anam boo xam ne dina jëriñ mbooleem kuy dégg mu nag kon yow mi bëgg yokk sa xam-xam ci lii bàyyi ne maa ngi lay yebal na nga gëstu ji lii téeréem boobu nga xam ne mooy kaashiful albaas عن الفايدة ولا عن فايدة الختم أبي العباس كاتب الباس بوبونغا خمني دنجا مباري كاتب الباس لن يهوي اليوم من كاشف الباس سيد برحم جوب رضي الله عنه وخنكو نلي موي كاشف الباس تيري لبو بو خمني اه لا كم كم خم خم كي ليرال اكو moom itam dafay leeral rek xam-xam bu jëriñ saalig bi ñu ngi xiir suñ bopp di xiir mbooleem koy dégg ne téere boobu ko bàyyi tegtale mu wax ne <coughs> kon tey ñuy continuer mu wax ne téere boobee ah bëri na ci ay façon xam-xam matière xam-xam yoo xam ne mu nga ca ci thème bii muy waxee nag dégg thème boobu thème bi muy waxee nii ci tasawuf mu ne la ca nekk ngëneel la ñeel ko moom mi ko bind waaye ñeel aji dégg ji itam mooy mboolem doomu boo xam na ci li tax itam mu ne ngëneel la ci moom ak mboolem koo xam ne di doomu aadama taxaw na ci téere boobu incha allah buñ duggee ci darsu bi dinañ dinañ ko leeral كوني من كلام ان شاء الله وقد اشبعنا الكلام فيها اي في الطريقه التجانيه وفي التصوف بوجه عام في غير ما كتاب ولمن شاء ان يراجع كتابنا كشف الالباسي يعني فائده الختم او العباس ففي دينغ ففلن يمن كلام متكتمو دادي يبلن وتايكم نيختم من قدم سيتكاسف الالباسي ñu continuer tey مباحث علمية في الموضوع هي من فضل الله علينا وعلى الناس وقد عرف بهذه الطريقة أحد أكابر رجالها وهو الشيخ الإسلامي بالقطر التونسي سيدي إبراهيم بن عبد القادر رياحي المتوفى سنة 1966 تعريفا موجزا فيه الغنية والكفاء وها أنا أنقل جواهر حروفه من خط يده مباشرة من صورة شمسية لإجازة كتبها الشيخ الرياحي من 244 هجرية للشيخ أبي العباس أحمد بن الشيخ السيد الطاهر الطليقي أفادني بها علامة تونس ومفتيها فضيلة الشيخ محمد الفاضل بن عاشور أطال الله قال الشيخ الرياحي رضي الله عنه الحمد لله هذه طريقة شيخنا أبي العباس التجاني رضي الله عنه يقول بعد الاستعاذة بعد الاستعاذة والبسملة أستغفر الله مئة مرة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة لكن بصلاة الفاتح لما أغلق أعظم لما فيها من الثواب من الثواب العظيم وهي اللهم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 بعد الصلاة العصر وذلك قوله تعالى بالغربة والأرصال ولكن من الغافلين ولا تكن من الغافلين لموي موي تاي لي نورا جيسي سين دارس ان باج يوي تليكو ان شاء الله نورا جيس تاي تيري بي kon ginnaaw bu ñu sant yàlla mi nga xam ne rek moo yeyoo sant sant goo xam ne sant gu tey la barke lool te tolloo ya màggaayam moom yàlla ya dégg ak dayob ya kattanam mi ngi ñaan yàlla julli te sëlmal ci yonent tumb tedd bu nga xam ne mooy buñ ci mbooleen pay yàlla yi te mooy seen caabi waaye mooy docteur ci xol yi aw wëli yàlla yëpp bal mooy seen ordonnance mooy seen garab yi leen faj mu ngi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla julli ci moom ak saxaabaam ak ñooñoom ak mbooleem ñu koy seeni njub kon ñëwaat nañ ci suñ darsu yaakaar naa ne fi ñu war a commencé tey rek mooy kaasiful al ay dégg nga kaasiful albas boobu Baay radiyallaahu anhu tegtale moom lay leeral ne nekk na ca kaasiful albas ay fànni xam yoo xam ne ay cili xam-xam yoo xam ne ah mu ne lu aju la ci tem bii ñuy wax te mooy temu tasawuf te mooy temu tariqa

ci man waye itam ci nit ñi lu tax te kep ku ci jor man na jëri yeen tibi sallallahu alayhi wa sallam da wax ne fi hadith ad dunya maluna wa mal'un ma fiha illa dhikrullah illa dhikrullah denga wa ma wala aw aliman aw mutaalliman yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne àdduna lu ñu lu ñu rëbb la mboolem lu nekk ci biiram itam lu ñu rëbb la ba muy tudd yàlla àdduna daal buñ ne lu ñu rëbb la mooy ne daal lépp bagage yi àdduna bi ci biiram dafay neen amul mujj du jëriñ loo mooy la ci ànd ak tudd yàlla illa dikrullah wama waala ak lépp loo xam ne lu bokk ci wàllu woowu la wa aaliman wala koo xam ne mu ci àdduna waaye nekk boroom xam-xam aw mutaalliman wala nekk kuy xam wax ji mu firi waxam jim ne loolu de ngëneel la ci man waaye ngëneel la jëm ci nit ñi moom mooy aalim bi mbooleem ku taxu ci téere bi nekk mutaallim pour lépp njëriñ indi soosa wax na ci xadis tam ni man allama dégg nga man allama ilman falahu ajruhu képp ku jàngale benn xam-xam dana ci am fay jàngal nga waaju ba mu xam ah dana ci am fay bu rëy dégg nga waaye itam nag bu keneen doxati ba dal ci xam-xam boobu itam fay gum ci am yow din ko am moo tax yun saa sax ne man allama ilman fa lahu ajru fa lahu ajru man amila bihi wala yanqusu min ajri laa aami képp ku jàngale xam-xam yàlla dina ko fay xam-xam boobu mboolem bu ko jëfee rek yàlla dina ko fay moom ki ko jàngale te du wàññi ca fay ak ka jëfee xam-xam ki mu jëfee moom ma ko jëfee fay yàlla dina ko jox waaye itam yow da nga am te du ko wàññi dara kon lii rek mu ne mën na laa nekk dalil ci wax yooyu waxal ji yow Birame ji mu wax ne. yéen dañu ko mu ñëw. bëgg ci def ay leeral ngir ñi xamul xam dina indi ay akaabir ci tarixa bi boroom xam-xam yi tarixa yi ak yeneen i boroom xam-xam yoo xam ne dafay firndelal waa ji comme ni ma koy waxoon ci darsu keroog ba ki nga xam ne dafa am nu mu jàppee tarixa yi ndég ñàkk xam su dégloo lii li nga xam ne tarixa bi tarixa bi ngeen kott la mu tax dina ci indi benn boroom xam-xam mooy kan Cheikh Ibrahima Riyaahi dafa ne xamle na day xas naa xamle ci tariqa bi kenn ci magi tariqa bi kenn ci akaabiri te mooy cheikhul islaam ca gooxu tunis sëriñ la ci lislaam kilifa la ci lislaam dëkk ca tunis mooy kan seyd ibrahim rayaaxi yaakaar naa ne ku gëstu xam-xam tuuti sax da gis turam ci téere yi di nga dégg ay xisaam di dégg ay jaloore borom xam-xam bu mag la ci tariqa tijaaniya bàyyi ne bind na ci moom Seyd Ibrahim ibnu Abdul Qadir Rayaaxi nga xam ne muy génn àdduna ci mille ci mille deux cent soixante six ci atom bi jirée bi mu ci bind nag taarifan mujazan mu ne ah xam ne la bu xam ne bu bu tuuti la ci maanaam bu yem la bu yem la rek waaye nag fii daniye koo mang fa dewa ak doytal ba boo ko rek te dégg ko nee doyna ci day ko bëgg xam tariqa tijani waaye kom lay doon ñaan la yow mi xam ne ya dégg wax ci Cheikh Ibrahima Rayaahi bob wax joju nak la wax ne wa ha ana anqulha man ngi koy maa koy copier maa wax ja maa ngi nii di ko indi ci kem taru mbindam nam ko bindee ci anam bu taaru laa koy indee ci loxo ci mbindam loxoom nag mubashara loo ci maa ngi am ci li may toxal nii dama ko jë amee ci mbind moo xam ne moo waaye ñu photo ko jamono bii liñ suura shamsiya mooy bu njëkk bu ñu waxaan suura mooy loo xam ne dañ ko dessin wala ñu yett ko nekk benn daa am statut bi loolu la ñu suura bi nee na ba jamono dox bañ appareil yi am moom ñu daan ko xula sam si xam ne dañ ko jël photo ko ba pare cadré ko ba mu rafet mu ne ci anam boobu la ko amee loolu yëpp bëgg ne am na ko ci anam bi gën ma amee ko ci mbindam loxoom ci ijaaza boo xam ne cheikh rayaahi moo ko bind ci cheikh abil abbas ahmad ibnu cheikh sayid tahir tulayqi mu bind ko wax ji may wax moo ko bind Cheikh Tahiru dégg nga tulayqi wala taliqi moom la ko bindoon ngir leeral ko tarixa tijaani bàyyi ne wax jooju laa leen bëgg indi ba mu wax jooju nag bokk nag ci ki ma jëriñ ci wax ji mooy ki ma ko jox afaadani biha mooy jëriñee na ma ko mooy jox na ma ko rek ki nga xam ne mooy boroom xam-xam ci Tunis waaye nekk mufti ba bu ñu mufti moo ko ñu déglu ci xam-xamu diine ngay wax nit ñi di jëfee ngay jàgganti gag gag yi moom kon liñ ciy déggee mooy ñu lu tudd fii ñëpp ñi gën a kawe ci seen jamono la ñi ëpp xam-xam ci seen jamono la rek la lay présenté fii ñëpp te ci tarixa tijaani yàlla lañ lañ tënkuwoon شيخ علامة تونس كي ما كان فضيلة الشيخ محمد فاضل الشيخ محمد فاضل بي باين موكو جوخ من اللي موكو تخ موكو تخلا من يكون بندم دنجا شيخ رياحي وبندنكو شيخ طاهر الطليقي شيخ محمد فاضل بي لكو بندم كان من شيخ محمد فاضل ابن الشيخ عاشور أطهر الله بقاؤه yal na yàlla guddal fanam kon bi baay radiallahu anhu bi bind lii booba waaja mu dund mu ñaanal kon yal na yàlla guddal fanam kon bind maa ngi présentation baa ngi noonu mm, li Cheikh Rayaax yi wax na te bindoon ko Taahiratu xiir mooy wax ji nga xam ne war a ñëw ci kanam muy xam ne mooy tariqa kon Cheikh Rayaax yi nii bàyyi bëgg indi waxam ci téere yi baax nañu xam tuuti كان موي شيخ ابراهيم رياحي تيجان سيدنا مولانا العارف العارف بالله الحاج اي حراز براده برم جواهر المعاني بند جواهر المعاني تخل وخي سيدنا الشيخ رضي الله عنه nga xam ne moom mooy xalifatu cheikh yi xalifa cheikh tijaani yi moo ko jox moo ko talqin wirdu tijaaniya ginnaaw ñaari at la cheikh ibrahim rayaaxi daal rañaan dem maghrib dem marok jógee tunis ne cëpp faas balaa moo def dara dafa gaaw dem ziyaare ji moolana cheikh tijaani radiallahu anhu sëriñ bi ko dalal teraangal ko ndax borom xam-xam la nit ku jubla woon jox ko ijaasa ci tariqa tijaaniya mu nekk muqaddam di talqin kooku buñ la ne ku xam la loolu dégg la moo bindi wax ji bind na ci ay fànn yu bari xam-xamu naaxu xam adab waaye xam-xamu tariqa bi bind na ci yu ci bari ngir di tontu ay nit ñoo xam ne ay ak radd ñoo xam ne dañ jéem a di tariqa tijaaniya mu jël xalimaam leeral ci comme ni ko Mawlana Cheikh Ibrahim daan defee radiallahu anhu bokk na ci yim bind mawridu saari wal asinna yuraddi ala man axraja cheikh tijaani an daairati ahli sunna mu ne def ko bind mu nekk ay rudduwut ay delloo yoo xam ne daf koy delloo mu mel ni ay jaasi yu yoo xam ne woy daggaakoon lañ jëmale ko ci ñi nga xam ne dañ ne Seydina Cheikh radiallahu anhu moom génn na ci daayira ahlu sunna mu leen wan nag nga leen loolu xamut bind ci ngir leeral kon Zayd Rayaahi moomu moom la waxam ñoo fi ku bëggoon Seydina Cheikh Alla bind na tagg ko moom moo wax ne wal imaamu tijaani ahmadu fiina daaciyan bilhuda dénga li daari salaami yashraxu nuura fi lquluubi wa yamxu limiyaahi lguyuubi kulla walaami xoolal wax ji ni mu ne suñu imaam bii di Cheikh di Ahmada Tijaani ku santu la fii nii dafa mel ni turam wa aji woote la jëm ci njub waaye jëme ci daaru salaam man mooy daaru salaam aljanna mooy daaru salaam yàlla bi ca la woote jëm mu ne dafay leeral dafay jël leeri xam-xam leeri tawxiid leeru maarifa di ko sotti ci xol yi waaye di effacer ci ndoxam xëybu te ndoxam xëybu bi ko ñoom xaasi laajee ñoom si Muhammad Xaafis ñu ko waroon biñ ne ko lan mooy maawul xëy daf leen ne mooy mooy maarifatu billah ndaxte moom rek moom mën a raxas xol ci lépp luy ay ay gàkk-gàkk moom it nag mu ne Cheikh Tidiane moom dafay sotti ci xoli leer waaye effacer. dégg nga lépp luy lëndëm waaye effacé ko nag ci ndoxam xëy kon ñu ñëw ci waxi cheikh rayaaxi ni ko bàyyi waxee lafdu sayidi ibrahim rayaaxi fi taarifi bi tariqa tijaani kàddu sayidi ibrahim rayaaxi ci xamle ci tariqa tijaani cheikh rayaaxi dafa wax ne radiallahu anhu ne maa ngi sant yàlla bëgg bi mu bindoon Eh, abu eh, kii nu mu tuddati Taahir Tulayqi lettre booba moo nekk nii comme ni la ko Baay waxee daf ko toxal lettre bi ci lañuy ñuy dugg nii mu ne ginnaaw bu ma waxee alhamdulillah damay xamle ne tariqa bii di tariqa